asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bokki julli gi bokki taalibe yi maa ngi nuyu ñëpp di ndokkee ñépp ci iidul fitr mubaarak gi weesu di leen jot li kàddu yu nuyoo yu bàyyi ko ci as Cheikh Sidi Muxtaar xalifatul am di tariqati muridiyya xafidahu llahu taala wa raa wa ayadahu wa zaada nasrihi mu di kàddu yoo xam ne da koo jëmale ci mboolem bokki taalibe murit yi nga xam ne digal ak tere rek la seq ak ñoom jëmale ko ci itam mépp mbokkum jullit moo xam ne min man yaqbalu nasiha min axiihil muslim képp fu ko mën dégg te jariñoo la ndax Cheikhul Xadim lépp lu mu mostaan di wax rek da ko daal jëmale ci njaboot gi kon sëriñ bi mu ngi nuyu ñëpp di leen sant di leen gën bu baax a baax ci yi weesu yëpp mu yóbbante ma nag ay kàddu yoo xam ne daa wax ma jëmale ko ci ñi dëkk ci dëkk bi ñëpp yëngu rek ci waa marché Ocass ku ci ne dañ ca am sa wàll li sëriñ Cheikh Baara Abdoul Ahad Mbacke wax léegi doyul na sëkk moom na xam nga dafa day borowu tàngoor boo waxee rek xam naa faw mu feeñ ci waaye nag lépp itam bëggug defar ak dëgg rek ci la ko teg ndax mënta wax lu mu gëmut lii sëriñ Abdul Ahad ka waxit leer nañ yaakaar naa ñëpp dégg nañ ko kon daanaka mën naa ne li ëpp sax ci li ma waroon wax ñoom dugg nañ ci bokk kon sëriñ bi nee na mi ngi nuyu ñëpp di sant ñëpp di gërëm ñëpp di xam le it ne fi mu koy tàmbalee mooy ab jullit moomul boppam ndax euh, yaa tànn nekkul jullit bi nga tànnee nekkul jullit nag na nga xam ne danga war a tënku ci sartu jullit sartu jullit nag ñëpp xam nañ ko wala ñëpp xam nañ ko ci la tax ak njullit wér waaye bokk na ca li ngay wax nay dëppoo li ngay jëf mm. li ëpp ci nit ñi nag léegi li ñuy wax tanaa xut lu lu contradiction da leen di dal dañuy gëm dara bëgg a ci biir allazina yuminuuna bil xaybi bil xaybi wa yuqimuuna salaata wa alxuraan fi mu tàmbalee mooy ñi gëm liñ gisut foofu la tàmbalee ajjana mm-hmm. yaakaar naa kenn gisu ko sawara kenn gisu ko mm-hmm. yàlla suñu borom bind lépp kenn gisu ko siraat kenn gisu ko mm-hmm. kon yëpp dañ ko gëm boo gëmee yooyu yëpp ba nag wëlbatiku bëgg lii nga ne naa ko gëm lee naa ko weddi bu waa sa ngir dee manqué noo miin baax di woon ak fu bu baax di loolu baaxut booy gëm dangay gëm lépp moo tax sa ngir di wër kon loolu nañ koy bàyyi xel ci lépp lu mën a doon te xam ne eh, xelum doomu aadama am na fu muy jariñe waaye am na fu muy lore am na fu muy jariñe rek waqaalu law kunna nasma'u aw naaqilu maa kunna fi ashaabi sa'iir ña tàbbi a sax wax nañ loolu kon foofu xel am na fa njëriñ waaye xel nag ni ko sëriñ saa yu ma sa leerale bu jugee fu ne mën na faa dem ci sansa mën naa dem ca mën naa jugee fii léegi xel mi dem ba Amérique wala xel mi dem ba Italie wala France wala mu dem ci garab bi wala ci àll bi waaye tànk moom bu jugee ci yoon rek la mën a jaar kon loolu mat naa bàyyi xel bu baax mm-hmm. ñoo xam ne euh, yàlla suñu borom ci boppam dañuy digle nga bañ a xalaat ci jëmm ji te ba xalaat ci ay jëfam yi nga xam ne sàkk na ko moo tax nga mën ko gëm. Mm-hmm. waaye xalaat ci jëmm yàlla ji dañuy wax ne bokkaale lay firi moo tax am na foo ko Sëriñ leer la ci Mawaahibul Quddus al ajz fi l idraaki idraakun wal fikru fi zaatillahi ishraak xalaat jëm yàlla ji moom bokkaale lay jur ndax doomu aadama saa su toppee am xelam rek ci ngëlamte la ko yóbbu kon li am solo mooy yàlla suñ borom bu di bu diglee dara bul wax ne yàlla lu tax mu digle lii ndax yow xekk ma ba tax suñ borom digle ko xamu ko waaye nag ndigale ci njar ca la njariñ di topp ndax boo delloo ci iblis ba suñ borom santaane nee na us judoo li aadama fasa judoo illaa iblis mm-hmm. ñi ne kaanam na jin ak beneen aaya bi mu wax ne illaa sa abar kon iblis moo gàntu la taxam mu gàntu dafa wax ne xalaqta nii min naarin wa xalaqta wa xalaqtahu min tiin da nga ma bind ci leer bind leen ci ci ban kon jëfandiku am xel moo suñ suñu sippi ko te ci ñëppoon daraja la ko Sëriñ Tuubaa nag daana wax ne ku la mënta digal nga jëf mun laa tere nga bàyyi mënta dox sa digg bu safaan kon digal nag saa su ko sëriñ bi yëkkatee du fa mu baaxoo jaar rek la jaar na ko kilifa kilifa bi daan defee mm-hmm. du ci seet lu neex kenn ndax euh, doomu adama yi di waxul leen neex amul njëriñ. déedéet sëriñ foo dafa waxoon ne fexe leen ba am ngërëmul yàlla suñ borom ndax nee na moom rek am solo ndax nee na ngërëmu nit ñi kenn mënu ko am nee boo ci sonoon ba am koy du la amul njëriñ. kon nag li am solo mooy nga am ngërëmul ki leen bind kon sëriñ bi itam foofu la ne lépp lu muy wax lu ne lu ci seet lu neex kenn waaye lu jëriñ nit ñi rek la moo tax mu di ko def ndax amu ci lenn loo xam ne dana ko jëriñ wala mu kon ki ñi digal itam war naa xam li tax sëriñ bi di ko digal kon sëriñ bi nañu xam ne dëkk bi sëriñ tubaa da koo sanc ba mu koy sanc itam dafa waxoon ne yaara tax ma sanc dëkk bi daw nit ñi ak daw li nekk ci loxo nit ñi mu bi ma ñëwee ci dëkk bi itam yaa rek laa fekk saawo yi nag ak windew pël kon fekku fi dara kon dëkk bi nañ xam ne sëriñ Touba moo ko daa fekk fu dara nekkut mu sanc ko ñaan suñ borom tubaab mel nii suñ borom nangul ko kon foofu ku fa ku ne war nga xam ci li nga nekk lu mu doon muy dëkk boo xam ne itam sëriñ Touba dafay ñaan suñu borom lépp moo tax xéewal yi yomb fi waaye ci biir xéewal yooyu itam nañ fexe ba xéewali bu mu jur ak ak ak ak mbewte ndax waxoon na ne ba ma nekkee ci géej ga da doon sonn lool ci ñaanal taalibe yi suñ boroom defe leen xéewal àdduna ak alaaxira mm-hmm. nee na ba ma ci sonnee di di ko ñaan suñ borom nangul ko ko mm-hmm. ba xéewal yi ëpp nee na mu mujj gis taalibe yi ak mbewte tàbbi leen ñuy jël alal ji yi ci des yëpp du ko jëfandikoo nu ñu ko war di jëfandikoo ñaan ma am ci loolu metti lool ma ñaanal suñ borom suñ boroom ne ko te te te fekk suñ borom da ko xamal ne ko suñ bi nee na ma laaj ko suñ borom ne ko lu ko waral mën ne ko yaa bindoon ci géej gan wax ne yow suñ borom yàlla nga ma defal xéewal ci sama taalibe yi ñaan mu ne ko nag ñaan ga nga ñaanoon nag euh, ñaan gaa ngi ñaanoon mu indi xéewali bi ak mbeeru tabb leen mhm. mu ne ko nag kon euh, mu soppiloo ko nuun nga ak lam mhm. moo tax bi mu ko soppee nag sëriñ bi nee na moo tax suñ borom defal leen xéewal mhm. yoo xam ne du àndateeg jaww kon suñ tubaab fàggul nañu loolu mu waxit ne suñ boroom da ko wax ne ko looy fàggul taalibe yi de na ci na ci mbirum commerce bokk yaxantu ndax nee na mooy xéewalu mujj jamono hmm. mu wax na ijal li ahli zari wa tijara ianatan aw yaxta aw yaxtawu bushara hmm. kon lépp lu ci jàppandi rek nañ xam ne Sëriñ Tuuba moo ko faggu faggu gi nag kon la nga xam ne mooy la ko cay delloo njukkal mooy xam ne moo la ko defal ndax mas na ko wax nit gàmm dafa ñëw am kenn kilifa gu mag gu togg ay teraanga yu bare bari wax ne ren de gàmm gi maa bëgg a teralal sëñ bi ak njabootam sëriñ bi ne ko ana loo ci jubloon mhm. mu ne ko xanaa del delloo la mu ne ko mënoo ko kon yàq nga sa jëf dëgg la gi nga man ba def ko maa ko jox mhm. daana anakoon la la la la lay delloo njukkal gi mooy xam ne maa leen ko defal kon nañ ko delloo sëñ bi njukkal dëgg la bu loolu lépp jàllee itam nag nañ xam ne dëkk bi dëkku Sëñ Tuubaa mm-hmm. wax naa ko nit barki dem ma ne ko bu toon nag taalib yi fi nekk di taalib yi Sëñ Tuubaa yaakaar Sëñ Tuubaa àddina ak alaaxira mm-hmm. dëkk bi ci boppam mm-hmm. wenn tour la di titre foncier di ne ci turu bi dëgg la nga xam ne tey ku ci yoon itam <laughs> ci bu neexee sëñ mu génn la turo ci mën dara waaye sëñ bi ci yërmandeem ñëpp xam ngeen ko ba ci autoroute Ila Touba bi ñu koy def la ci duggoon ci titre foncier bi biñ ci amee jafe-jafe état bi biñ ñëwee ci man wax ma ko fekk ñu war leen dafay xaalis dama laa dama woo waa état bi ba ñëw ma dajal leen ak waa Assirou ne leen li ci dugg ci dëkk dëkk Touba ci titre foncier bi ndax ñoom dañoo waxoon ne loi muyu leen ñu fa jox ñooy borom tool yi mm-hmm. may leen ne siñ bi nee na soxlawu ko dëgg la ci titre foncier Touba la nekk waaye lu ci état war a fay na fa ñooñu kon siñ bi moom oh, njaboot gi képp la fi nekk taalib yi taalib yi la fi nekk te loolu guddeeg bëccëg ci la nekk mm-hmm. ndax képp ku fi ma sa nekkal sëñ Touba tàmbulee ko ci Cheikh Mouhamadou Moustapha ak Cheikh Mouhamadou Fadil mi nga xam ne moo fi indi marché Ocass bi mm-hmm. ba ci Cheikh Abdoul Ahad bi mu koy defaraat mm-hmm. ba ci Serigne Sariou xam ngeen yéen jëm ci amoon mm-hmm. ngir tabaxaay yenn marché te sëñ bi am na ci yenn naal yoo xam ne bëgg na marché yi ñu yaatal ko ci dëkk bi tamit mu ngi koy lijjanti ba ci Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké am na ci foo xam ne ànd nañ fa Cheikh Sidi Moustapha mii noonu noonu la ko noonu noonu la am na ci ay naal ci bëgg nit ñi fu ci nekk rek ñu nekk faat ci nekkeen woo xam ne dana méngoo ni ko bëggee. Hmm. tañ xam ne kat fu mu ci tabax wala mu digle ñu tabax ko it soxlawu ci benn place. bëgg ko. Hmm. kon lépp taalibe Sëriñ Tuubaa rek tax ndax xam ne dëkk bi moom la Sëriñ Tuubaa waxoon rek ku fi ñëw ku ne sam xel la fi saw xel sa ku fi sam xel indiwul saw xel daal la fi indi. Hmm. kon yaay yaar yooyu rek fi ne ki fi ñëw ngir. sàkku si tex ak àdduna ak àlaxir ak ki fi ki fi ñëw ngir sàkku si koom àdduna dañoo ànd nag mm-hmm. rijaal laa tulhihim tijaratun wala bayhun an zikrillah ak wa axaruuna yadribuuna fil ardi yabtaxuuna min fadlillah kon yooyu rek fi daje ñooñu fi daje nag Sëriñ Tuubaa moo woote woon wax ne yaa ahla barri yaa ahla bahri on joli barri ba'di shaqaa'i mm-hmm. kon bu ñëpp ñëwee nag wuy si woote Sëriñ Tuubaa bi rek waay nañ feex ba dimbale sëñ bi ci li mu bëgg ci dëkk bi ndax ñu xam ne kat Tuubaa fu ñu tuddee tur yi ñëpp am lu seen xel dem. ndax war mooy dëkk bi. ci lépp loo xam ne lislaam bëgg ko wala méngoowutu dëkk bi. Mhm. ñu fexe ba loolu ñu di ko bàyyi. Mhm. war nañu fexe itam ba li lii li nga xam ne mooy image Touba ñu di ko sàmm. Mhm. ndax lool sax suñ Touba fàggu na ko waaye ñoo ñoo ci war a taxaw na ndax suñ boroom kat dafa wax ne. wa min dabbatin fil ardi illa ala llahi doomu aadama joo gis ju ne. maa ko faggoo lay ne ci biiram waaye kenn tëjuwu ci si biir kër ak lekk fekk la fa <laughs> yaa ji wuti ko suñu borom jàppaloo kon Serigne Touba itam bu aaree dëkk bi ñaan fi ñaan ñi fi dëkk ñoo ko ñoo ñoo ko mën a jamono <laughs> kon nag nañ fexe ba imaasu dëkk bi ñu bañ a jiital mukk àdduna ci àlaxira ndax man baax nuural bi du jaa fa seen dama mbirum Serigne Touba kat képp ku ko jaay ku ko jaay jënde ko àdduna da nga ko rëccu wallaahi te doo jëriñoo njëgg yi ndax yoon wi Serigne Touba noppi na ci ndax loo xam ne dox na téeméeri at te kenn mës a gis fu mu yàqoo wala luy nurub yàqu-yàqu mm-hmm. kon wóor nañu ne ñun ñëpp dañuy dem ba faatuwaat lu yàgg yoon wi di gën a dox di gën a kon la Cheikh Mamadou Fari daa wax rek Touba mayes na fee jéem a defaru ba defaru fi mm-hmm. waaye mayes na fee jéem a yàq ba yàqoo fi kon yàlla nañu ci yàlla musal amiin yàqoo gi nag dara jiituwu ci lu weesu ndax bari na ab rax bu dugg ci dëkk bi mm-hmm. Serigne Touba nag dafa ñaanoon ne xuluubu jumlati lasina aflahu li yatawajjahat wa bi muslim xoli mboolem ñi nar a texe rek dëgmal nañu mm-hmm. waaye bu ñu agsee ba noppi nag suñu borom daan leen defaraat ba ñëpp tegu ci yoon kon nag jàpp naa lii ci la dëgg la kon nag yii fi xewoon ci marché bi ni ko suñu Cheikh Baara waxee léegi euh, sëriñ bi lépp yërmande rek la ci mm-hmm. ndax mënoon na ko saafara neneen waaye defu ko ndax li tax du ko saafaraa noonu it mooy daa am lu ko seq commune bi dafay nekk di maire bi maire bi euh, yëfi sëriñ bi la ndax ña fa ne ñëpp suñ bee leen tànn njabootu suñ tubaay gépp ku ci ne sa ndaw ne fa seexi suñ tubaay ñi ci ëpp seen seen ndaw ne ñu ne ci marché yeeg ñi yëngutu ci dëkk bi ñëpp ak commerçant yi ku ci ne seen ndaw ne fa ñëpp dugg ci biir kon ñoom la leen fi bàyyi Abdou Lahad sëriñ bi jiite ko teg ko ci kanam kon nañ xam ne yëfi sëriñ bi la ñoom itam luy defar dëkk bi ci li ñu xëy li ci des itam di waa police ak gendarmerie loolu état bi indi leen fi état bi tëb tëbut indi leen fi ndax sëñuñ ko ndax Touba day dëkk day moomeelu sëriñ bi mhm. sëriñ Abdou Lahad moo ko fi indi woon gendarmerie mhm. ba mu ko fi indee dinaa ci nett lu yéeme sëriñ Cheikh ndi nijaay mooy bàyyi alxaaji Njaay ndindi mii alxaaji Njaay Cheikh ndindi mii def waxtaan yi mm-hmm. ba sëñ ab Lahad wagge woo woowee magi murid xamal leen dama fee bëgg ay gendarmerie ngir muy jubbanti nit ñi ndax civil mënta lijjanti moroomu civilam mm-hmm. moom ba mu demee këram da doon jooy mm-hmm. daana ci lu ñuy defati ci dëkk bi ñoo ñàkkul taali bi di jooy ndeysaan naana bu ñu demee ba sëñ bi di digle ba ay ma di ko dimbali ci ci ci ndigal kon defatuñ la ñu war a def kon nga xam ñoom fi ñu nekkoon te eh, lañ ci jubloon lépp weesuwut mhm. ndax ñoom seen gis-gis dafa sori booba am na ñoo xam ne gisewuñ ko woon noonu mhm. waaye tey jii ku ne xam na ne bu ko Cheikh Abdoul Ahad Mbacké indiwutoon mhm. ba nëgë ni dëkk bi saa su xëyee da dégg nit ku ne rey dëgg la amul werante ñoom lu ñu def rek dañ ko dañ cee jubóog seen borom jubóo ca bëgg-bëgg suñu Tuubaa Serigne Saliou itam bi mu fi indi police bi booba yaakaar naa ñëpp dégg nañ ci coow yu bëree bëri. Mm-hmm. police warta am ci dëkk bi nangam waaye ñoom li ñuy def ñoo ko xam. Mm-hmm. kon ñoom itam euh, lu lu ñuy def nañ xam ne njabootu Sëriñ Tuubaa te sëñ bi indiwu leen fi ngir ñu duma taalibe yi. déedéet indiwu leen fi ngir ñu sonal nit ñi. Mm-hmm. waxtu ne itam fu ñu leen gisee loolu lañ leen digal ñi fi ñëw yaakaar leen feddi ñi fi ñëw taalibe Sëriñ Tuubaa moo leen feddi ba ci ba ci siyaare yi sax dama leen koy wax bu ñu agsee sama kër gi dama naan leen nañ ñu taxaw ci bit di lijjanti nit ñi waaye taalibe yi jug ngir siyaare Sëriñ Tuubaa hmm. ñu leen dóor aka ay lakk ay ay ay ay ay yooyu ñuy taal liif lacrymogène ay ay liif xamu yi tàkk loolu man gën ma te ñëmewu ma tax ñëmewu xam naa ne eh, taalibe yi njaboru Sëriñ Tuubaa lañ njaboru Sëriñ Tuubaa kenn du seetaan ñu jug ngir yaakaar Sëriñ Tuubaa ñu wëlbat ko di leen toroxal ak di leen sonal. kon loolu waxtu ne ñu leen koy fàttali waaye nit ñi seen jëm bopp itam nañ xam ne ñoom itam eh, siiwul mënta lijjanti moroom kon ñi ko suñu Cheikh Baara waxee lu ci nit gisate fa ko war a jàmpati xam na ko bu dee ci marché bi suñu Cheikh Baara mii moo dox moo dox seen digg siñ suñu kon moom itam lu ma ci war a jàllale wala mu war ko wax sëñ bi dana ko def lépp loo xam ne luñ ci war a def la te man ko ci itam danañ ko def. ndax loolu mooy indi wu rafet sëriñ Abdul Ahad Kam yi itam li nga xam ne moo ci ak wàllam lu ci nit yëgate te koo def na dem ba àgg ci moom waaye dëkk bi kat am na loo xam ne xamewuñ leen ko ndax bu ñu jógee bëgg a saafaraal seen bopp buñ leen seetaanee ñee daañ leen sonal. kon ñun itam mënuñ bu ñu leen bëggee sonal ñeen leen déet bu leen leen sonal ba noppi ñoom itam ñu bëgg mel ne ku néew ci kilifteef. loolu itam boobaa li ñuy wax fawdaa li indi muy anarsi mm-hmm. te anarsi du lijjanti lenn ndax suñ borom dafa am nu mu bindee àdduna am nu mu ko doxalee ba nga xam ne buñ ko lijjantiwul suñ Tuubaa dafa waxoon Cheikh Mamadou Moustapha ak seex Mamadou du ne leen yaar fi nekk àdduna ak alaaxira mu ne àdduna yëgoo la laaj alaaxira nag mbirum suñ boroom la wallaahi suñ borom nag yéeg la laaj mm-hmm. kon mbirum àdduna na ko Sëriñ Abdou Lahad lépp lu ngeen ci gis lijjantuñ ko ba bam ba mu nosu ci wenn say rek loolu ci yàqu la jëm ndax ci àdduna lay delluwaat li nga xam ne suñ boroom da ko da ko da day lum bindal boppam sàmm ko nag loolu doomu aadama lottu na ci jëm ko yàq kon loolu na ci ñëpp gën a bàyyi xel waa daayira Safinatoul Amane itam sëriñ Saliou Mbacké moo moo leen joxo ndigal jox ko ndigal sëriñ Modou Lo Ngaabu ne ko yi nga xam ne lislaam da ko bañ ci dëkk bi te te mu loo xam ne sëriñ bi tere gi mu ko tere da koo ci tere suñu borom ndax lu suñu borom tere ci dëkk bi la te loolu bu dee ci wàllu loi rek police ak gendarmerie xëy na fii li muy spécial tax waaye sëñuñ ko tere ndax loi terewu ko waaye lislaam na da koo tere te ne ci biir réew moo xam ne réew réewum mu du muy attewoo ci lislaam nekkul dawla islaamiya kon ñoom itam sëriñ Saliou moo leen tànnoon jox ci ndigal sëñ Modou Lo nga mu ànd ko ñu mu ko àndal moom itam mu ngi ci dex def taxawaay bu rafet boo xam ne ñëpp ko ci war a sant kon kenn waru ko ci gàkkal wala nga ko ci dëkkeel fu mu dëkkut kon ndigal la ci am ci sëriñ bi te waxtu wu nekk itam bu ma ko gisee dama naan ko lii la sëriñ bi di jëf jëfloo bu fekkonte ne bàyyi woon nga ko ñaar fukki fan rek nit ñi dañuy xam yàqu-yàqu bi mu wallaahi dëgg la hmm. ñëpp ko war a sant ñaar ko ndax moom itam soxlawu ci ko tag li ma doon seere suñu Cheikh Bara léegi soxlawu ci ko dagg soxlawu ci ko ku ku ku ku wàññi mhm. te loolu mooy li am solo ndax nit moom day def li mu war a def rek la jës mu bàyyi ko ci loxo suñu borom te bi nga xam ne Cheikh Mouhamadou Lamine Bara Mbacké ñëw na itam daa yeesalaat ndiir la fàttali ko bi ak Cheikh Sidi Moukhtar ñëwee itam moo ko woolu boppam ba mu ñëw mu joxal ko ci ndigal waxtu bu nekk itam mu di ko woo di ko laaj ngir di xam fa mu toll kon loolu itam ñi ngi digal ñëpp nañ ko jàppale. ci fépp foo xam ne gis nañ fa lu ñu war a tere lu ñu war a tere loo xam ne lislaam da ko bañ rawatina lu mel ne futbal bi nga xam ne. dëkk bi kenn mënatu fee dox. ndax football bu bari. Mhm. te loolu yàqut ak jamono rek indi ndax gone yi kat war naa am leneen luñ tal ña toll ci jàng waris na leen jàngal ndax suñ bi kat daana ci soññe bokk na ci li suñ tubaab mu jox suñ say daana ko fàttali mooy nañ leen nañ leen jàngal yar leen te tàggat leen mhm. kon. nañ fexe ba ñu toll ci jàng nañ fexe ba jàngal leen ñu tollu ci yaruñ yar leen ñu toll ci liggéey itam ñu tàggat leen ci liggéey waaye bu dul loolu kat am na ci loo xam ne kenn du xam fa mu jëm. ndax gone bu jugee eh, war a war a jàng war a yaru addunam jëpp mu jëme ko ci mpo loolu du du luy jëme nit fenn te Sëriñ waxoon na ne yetta fi nekk li mat a def ak li matul def ak li ëpp def. mu ne li mat a def mooy jaamu yàlla ndax moo lay may àjjana li mu sol ci sawra li def nag mooy fo ndax du la may dara lu mu sol ci dara mu ne lépp def nag moom bu ko sa xel sa xalaat mooy def naqar yàlla kon euh, fo Sëriñ Tuubaa da ko bañoon ba ca des itam mooy yi nga xam ne lislaam da koo tere ñu di ko publicité ci dëkk bi lool itam nañ ko moytu ndax loolu day xeerta nit ñi ci def lu naqar yàlla mm-hmm. njaay yi ñuy jaay itam te lislaam tere ko tam jege jumaa ji loolu itam sëriñ baa ngi koy fedli lépp lu ci nit man fexe ba loolu nga bañ koo defati ndax loo xam ne lislaam da ko terekat bañ ko loolu koo ko toppit ci fekk lu baax njariñ bi doo ci fekk kon sëriñ baa ngi yeesal tere yi itam bari na ci dëkk bi te Cheikh Abdou Lahad tere woon na ko fi ànd ko njëbootu sëriñ Tuubaa loolu itam sëriñ baa ngi koy feddliwaat bu baax a baax ngir nit ñi gën a bàyyi xel ci loolu te xam ne kat dëkk bi képp koo xam ne bëgg ngaa def leneen mën ngaa génn ba Touba nga dem defe ji ko fa waaye dëkk dikk ba ci dëkku sëñ Touba bii nga xam ne ñaanoon suñu borom ne ko na ko def muy dëkk boo xam ne képp ku bëgg baax lu baax da lay yomb waaye képp koo xam ne bëgg ngaa def safaan nag boobaa nit ki nga xam ne lu baax ni la ni ni la cee fayee. Mhm. safaan bay noonu lay demee. te daanaa dégg kilifa bu baax muy wax ne. Mhm. Touba de mooy dëkk boo xam ne. doo fi gis mukk mag moo xam ne dañ naan mag mii dinañ def ci dëkk bi kon loolu Sëriñ Tuubaa am na ci fulla dëgg la am na melokaan woo xam ne ku ko mel saw fan du gudd. alhamdulilah kon loolu itam mat naa bàyyi xel bu baax te ñu gën a yaraat nit ñi gën a tegaat lépp ci yoon te xam ne Tuubaa lii leen Sëriñ Tuubaa defal néew ma xamuñ ko de waaye war nañ koo gën a xam. dëgg la te am na lu Sëriñ Saliou waxoon ci at mooy muy wax ci. marché bi dafa waxoon ne loolu da ko koy bañ ci dëkk bi nga koy bañ waaye boo génnee fii rek di mbàkke gii rek boobaa dootoo ko bañati te waxe doomu suñu tubaab moom bu doon téeméeri at saa su xëyee day gën a des koy itam nañ xam yërmaane ji leen sëñ bi ëmbal te xam ne lépp bëgg ñu baax rek tax te xam ne bëgg lépp ñu jariñu rek a tax kon daal loolu bokk na ci li nga xam ne sëriñ bi waxoon na ni nañ leen ko wax ba ci biir loolu itam sëriñ bi mi ngi fàttali ba ci photo yi nga xam ne ñu ngi koy def ci biir dëkk bi xëy na ñu ngi dëgmal ay élection loolu lépp tam na ko nit ñi bàyyi xel ndax bëgguñ ko dëkk bi ku fi dugg mu ne dëkk la dëkk dëkk la boo xam ne politique yi lañ fi def ndax boo leen gisee waa kër Sëriñ Tuubaa daa ko tere terewuñ nit ku jug wate ji waaye ne fi ne ci biir dëkk bi nag eh, xuloo bi xeex bi ak ŋaayoo bi ak waxante yu li ñaaw loolu Tuubaa kenn miinewu leen ko <laughs> war nañoo faxee boo ko fi dugg imaasu lislaam imaasu bu yoonu murid lay jox waaye dug dugg ci dëkk day day day day day day maharajaan goo xam ne ay politiciens rek lay dajale loolu tam war nañ ko moytu ndax nañ xam ne euh, Sëñ Tuubaa li mu fi def ku ñëw donc fi fekk boo demee bàyyi ko fi. dëgg la kon nag li fi Sëñ Tuubaa fàggu te indi ko fi te wóoruñu ne du fi jug bopp ba mukk loola waris na ko sàmm bu baax a baax sàmm ko nag dara jiitu ci. jiite Sëñ Tuubaa ci sa lépp te xam ne kenn ku ci ne la la Sëñ Tuubaa defal moo ëpp la ngay la ngay séentu ci keneen. Mm-hmm. te xam ne Sëñ Tuubaa bu génnoon loxoom ci itam doo seqati jéem. te képp ko la fonk ba lay teral itam jëm Sëñ Tuubaa jëm Sëñ Tuubaa ji ñi terale nag war nañoo fexe ba xam loolu bàyyi ko xel te xam Sëñ Tuubaa la mu bëggoon xam la mu doon bañ. Mm-hmm. te la Sëñ Tuubaa daan digle ak la mu daa tere moom ñëpp xam nañu ko. Mm-hmm. te waxoon ne nit ñi de yeyoon na ma ñoom fii ngir wax naa ñu dégg jëf naa ñu gis bind naa ñu jàng bind na bàyyi fi itam kon lépp loo xam ne Sëriñ Tuubaa daw ko doxe ñem yar daawuñu ko doxe ak njabootu daawuñu ko doxe boo doxee ni képp koo xam ne yaa ngi koy jéem a def itam mi nga xam ne ci sa bakkan koo teg waaye teewoo ko ci bëgg-bëgg Sëriñ Tuubaa kon yàlla nañu yàlla dimbale bañ suñ borom kàttan nañu ba ñu di ci góorgóorlu mm. ndax sax ci ak na ko diglee ñu def ko yombut hmm. waaye nag góor ji ba fa suñ kem kàttan yam hmm. waris waris na ko bu baax ndax eh, Sëriñ Tuubaa daana wax ne bokk na ci seytaane yi muy yàqale nit ñi mooy hmm. saa su santaanee dara bu génnee la ñuy jëkk wax mooy sëñ bi lim santaane kenn mënu ko wala buñ ko mënoon luñ ci wut si nee na loolu bokk na ci li seetaan di yàqale nit tañ xam ne kat mboolem yi nga xam ne moo doon dox ci àdduna muy communiste capitalisme néo néo libéralisme yëpp daan na ñëpp ma Sëñ Tuubaa wallaahi ñi nga xam ne sax duñu ay jullit ba ci tubaab yi gën a kawe tey boo demee man gis naa ci ay kilifa yu mag am na ci ñoo xam ne ay président lañ am na ci ay premier ministre lañ am na ci ñoo ay ministère de l'intérieur lañ te ñooy réew yi gën a mag ci àdduna mm-hmm. waaye ñoom ñëpp liñ maase ci di ko wax mooy gis nañ ne daal yoonu murid mooy solution bi gën a mën bi gën a mën a indi jàmm ci at barke alxuraan mhm. kii di président France bu yàgg kii ñu fal bu yàggul wax na ko. Mhm. ministre de France bi fi ne woon nekk mujj nekk ministre de l'intérieur lépp ñetti weer daal wax na ko. boo demoon tey jii ci fi ñuy tuddee institut monde arabe. Mhm. boo fa da fekk exposition bu mag boo xam ne dañoo tànn ci àdduna ay réew ay ci ci lislaam ay exemplaire ci ci Sénégal nag yoonu murid lañ ci indi. Mhm. indi Sëñ kon ñoom seen jëm bopp xam nañ ne Sëñ Tuubaa mhm. mooy li nga xam ne moom lañ mën a jaay àdduna si. ngir jàmm mën a billaahi mhm. Sëñ Tuubaa dañoo andil mashruuxal fawsayni génn ci ñun procès yi nga xam ne mooy euh, at-tahrib occidentalisation ak ak tubaab bi yooyu yëpp Sëriñ Tuubaa da ko da ko génn ci ñun moo ma sowoon foofu si nii. Hmm. muy fawsul insaani fi dunya fawsu fi axirati. tax nit ak tax ak ak alaxira tax ak àdduna ak alaxira hmm. andi hmm. ñu ak njub ak mbaax ak rafetal. ak makaanu axlaaq loolu nag la war a sàmm te bañ a bàyyi te bañ a toppaat li nga xam ne nag dañ ko wàccoon. génn ko ci biti. ñëw sanc si dëkk bi yaakaar ko Sëriñ Tuubaa. ñu wëlbati ko bëgg a toppaat loolu loolu ngëlëmte la yàlla ñu ci suñ borom musal amiin te dimbali ñi itam ba ni ko sëriñ bi bëggee waxtu wu nekk mhm. te si Cheikh Sidi Muxtaar yitteem jëpp yu suur loolu mhm. mooy nit ñu jub nit ñu baax ndax koo xam ne loo am delloo ko lislaam loo am delloo ko Sëriñ Tuubaa mhm. kooko lépp luy wax rek yërmaane la ci la te xam ne dëkk bi yërmaane moo fi indi nit ñi yërmaane jooju nga xam moo fi indi nit ñi rek waxtu wu nekk léeg-léeg ñu toloore ci loo xam sax daa dem bu ay oto yu amut kii ñu bëgg leen génn ñu leen bàyyi leen ak yeneen yu demee yoo xam ne waxtu wu ci ne yërmaani ji rek li ñu topp ndax xam ne nit ñi ku fi ñëw rek yaakaar la feen dëgg la te bu ñu sonoon yaakaar jooyu du tas du tas mukk hmm. du tas sax ndax loolu néew ci loxo ci loxo Sëriñ Tuubaa la dëgg la dëgg waaye nag nit ñi itam war dañ ciy góorgóorlu hmm. fexe daal ba gën a sàmm li nga xam ne mooy melokaanu dëkk hmm. fexe ba gën a sàmm li nga xam ne moom la ñëpp xame Tuubaa kon ci tënk ñu ngi jeexale foofu kàddu yi di ñaan suñu borom dimbali ñu. amiin defal ñu tawféex. amiin def ñu dëgg dëgg ñu taalibe Serigne Touba. amiin def ñu itam nag. ñu bañ a génn ndigali Serigne Touba yi. defal ñu itam nag yoonu Serigne Touba wii. nga xam ne Serigne ñu ngi ciy liggéeyloo. te muy loo xam ne itam li ma ci wax lu bare bare. nekkut loo xam ne lu ñu war a pokkarewoo la wala lu ñu war a ndamoo la. lu ñu war a sante la. ndax lu ci sëñ bi def defloo nit rek kat sa junni moroom mën nañ ko te bu bu leen ko defloo woon te mën naa am ñoo la koy dax kon ku ba ci ba ci man mi yeeg ñëpp kuñ ca tànn liggéey loola wóoru caa fas dara lu weesu liggéeyal sëñ Tuubaa wóoru caa dugal àdduna sa kem talaay kàttan doomu aadama dafa matali waaye ci biir loolu itam ñoo xam ne sëñ Tuubaa ku ca tànn rek lañ ca man lépp moo ko def waaye waxtu ci génnee loxoom nag benn jéego dootoo ko dootoo ko mën a seqati kon nag ñu góorgóorlu ci sàmm jéem a sàmmal sëñ bi li nga xam ne bëgg na ko fi jéem a sàmm suñ digg ak suñ Tuubaa ba ëllëg si biir ndegam suñu yaakaar yëpp génn ko waxtu wu ñu dajeeg suñ Tuubaa danañu wóor ne kat jaayuñu jaayuñu sëñ bi jaayuñu jaayuñu yoonam bi yàlla nañu ci dimbale nag amiin ba buñ ko ma buñ ko mën a seq benn jéego ci loxo ne dana yàq yoonu suñu tubaab yi ndax kenn mënu ko yàq ku ko nar def sa kaw lay gëpp yàlla ñu dimbalee tam ba buñ ko jéem a mën a jaay ndax ku ko jéem a jaay ku nekkee doo jëriñu dëgg wallaahi lancé asalaamaaleykum wa rahmatullahi taala